alhamdulilahi rabbil alamin am nañu Sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtaara lahoo ma sabax bismillah seen ñëw gi ngeen ñëw mbaa naw leen seen bopp ñu ni ko déedéet sëriñ bi ni kenn ku nekk dañoo fobu buum raccatal ci baatam mbaa xam ngeen ni ña toogit seenu yaa fuus ba bawu leen fa ñu ni ko waawaw sëriñ bi ni ku fi ñëw dañu laa indi wér max naam waxtaan yi bari na lool lu ko sëriñ bi wax ñëw na ci lu man ñetti waxtaan yu bokkul wér na ngir bayit yi xadan zala ayatin lakallahu khat nafat li ghayri si waa man li lii minal khalq sëriñ tuuba khadala wala maxtaaloo masna wax ku ñuy wax mahmadan radiallahu taala anu ca gànnaar fobal lagi ak derbi bi mu fab ko top ci mom biñu sore mu ni ko tegal derbi mu tek mu julli ñaari rakka ci penko bi ni bismillah mu fab bi ñu doxaatee lu yàgg sëriñ bi ni ko tegal fi suuf mu teg mu julli ñaari rakkaa ci watuk soowu toog ab diir ni ko fabal mu fab bi ñu doxaatee ab diir sëriñ bi ni ko bismillah mu lal mu julli ñaari rakkaa ci wetu gànnaar gi toog ab diir daal di ñu doxaatee ab diir sëriñ bi ni ko bismillah mu mu julli ñaari rakkaa ci wetuk saalum gi ni bismillah mu fab der mu daal di di delsi bu mu doxé ab dir karbat wi mu sol karbat xétu dal la ak dig jam ko ci serigne bi ni ko mahmadan agal suuf setal ma li mu ag suuf dindi dindi muta serigne touba khadalo la martalo dindi mu ngaas mi nekkon ci ba atam jox ko mu ngaas lu ñuy dindi ak deg la dafa dindi mu ngaas bu nekkon ci batam jox ko ni am setal gi ba li ñu ci wax yayoo na koom déet mu jël ko daal di koy dindi sëriñ bi ni ko ne xam moos kii ku ko yor doo yor bàkkaar te it ku ko yor ba jóge fi mën na laa ramu sëriñ bi ni ko kii ku ko yor doo yor te it ku ko yor ba jóge fi mën na laa ramu wér na sëriñ Tuubaa xaada bi mu nekkee gànnaar masnay bind ba muy yàgg mu rëdd ñeenti rëdd ni ki may digal nee fi ngeen def fi mbaar lu mu gudd guddi bu yeggee na ngeen ma ko yëgal ñee di wuti xànci ñee wuti gayal xeetu bant lay nuru xànci mooy xeetu ñax wala bant maam dañu dindee ci ah, bant bu mu noppee ñu ni ko noppi na sëriñ bi ñëw war ko ba noppi ni bismillah seen pas-pas rek lañu doon seet ndax ki moom xànci moom bant yi mënoon def ba noppi mu taxaw waaye seen pas-pas rek la ci seet soo liggéey lu ngeen di liggéeyati na ngeen ci am pas-pas wér na sëriñ Tuubaa xaada lawoo laaw maxtaar lawoo nee na lii ma leen di diggal togg ku xiif la bala ma leen koo digal def ko su ma noppee gaaw defi ko wér na sëriñ bi li waral lu mu sant waay mu def ko fa sansa da ko kudul sant ngir lenn lu dul yàlla subhanahu wa ka mu koy sant yitam bu xoolee gis ni moo ko ko gën a def wallahu aalam sëriñ tuuba xaadalawoo laaw maxtaaralawoo mas naa wax sëriñ xamsatu jaxate radiallahu taala anhu sama waajoojee mooy yonante bi salallahu taala alayhi wa sallam wa war naa cee sañ lu kenn sañul war cee man lu kenn mënul mu ni ko waawaaw sëriñ bi ni ko xam nga lu tax mu ni ko bëgg naa koo xam sëriñ bi ni ko dama ko aw fu ko kenn awut siiw na xëy na yoonu tagg ak ñaanal ko lay wax wallahu alam sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa wax sëriñ am satu jaxate radiallahu taala anu yàlla ju fi mas a jaar ba jëfal sunu boroom luy tax mu rafaatale ko bis sunu boroom rafaatale nu ko bis man nag maa ngi lay xamal ni tey jii mooy sama bis xëy na mu doon bisu màggal sëriñ am satu radiallahu taala làmbu jibaam am lu mu ci daj jox ko sëriñ bi ni ko maa ko barkeeloo ci bis bi sëriñ bi ni ko na nga sant yàlla bu baax ndax lii nga ma jox laa njëkk am ci xalaalan tayiban maanaam lu lew ju ma mën a jëfandikoo ci bis bi daa di koy jox ndaw mu jënd ci ab gàtt ba mu ñëwee sëriñ may mawlaay busa radiallahu taanu la woolu ni ko nañ ma ko defaral te yéeneel ma ci sant yàlla ba ñu noppee mu ni nañu ma ko defal ñetti saam benn saam nañu ma ko joxal soxna Aminta Busa radiallahu anha waajuru waa Abdou Khadir radiallahu anhu ba ja des ma ko joxal soxna Anta Bale radiallahu taala anha des sarax naa leen ko yéen taalu ba ñu noppee mu ni nañu ma waxal ñi nekk ci tund wi te aju ci man su waxtu sàngam jotee daa wax waxtu wa wala alam nañu ma fekk si fii daa am lu ma bëgg a waxtaanee ñoom ndax bëgguma ñu wooru ci man ba waxtu woo jotee ba ñépp ñëw sëriñ bi wax lii daa am lu ma bëgg wax ak yéen li ma bëgg a wax ak yéen mooy waaye yàlla ju fi mas jaar ba jëfal sunu boroom luy tax sunu boroom defal ko bis sunu boroom rafaate na ko bis ka ci gën a siiw mooy sayduna ibrahima alayhi defal na sunu boroom lu tax sunu boroom defal ko bis sunu boroom defal na ko bis maa ngi leen di xamal ni man ahmadu jëfal naa saa luy tax saa boroom defal ma bis defal na ma bis bis bii mooy sama bis yéen ñi aju ci man koo ci xam ni bisub Ibrahima dikk na alayhi salaatu wasalaam nga am ñaari gàtt na nga benn bi ci bisub Ibrahima alayhi salaatu salaam santale ko ko yàlla ndax sunna la gàtt ba ca des dencal ma ko ba sama bis ñëw nga santale ma ci yàlla ndéem du la gaañ mooy sonal képp koo xam ni ci man nga aju bisub ibrahima dikk alayhi salatu wasalaam amoo lu dul benn gàtt maa ngi lay xamal ni bu ëllëgee jotewook ibrahima dara alayhi salatu wasalaam maay sam ibrahima te bu ëllëgee doo gis ibrahima alayhi salatu wasalaam man ngay gis kon téyel ma ko ba saa bis ñëw nga defal ma ko ci sama bis bu fekkee ci man nga aju siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo la maxtaaloo mas naa wax sëriñ abdurahmaan lo. bi mu koy jox ñenn ci ak njabootam bu ñu buun bu ñu saalañ buun mooy gëj a jëfandikoo ndawal saalañ mooy gëj a watu bopp saq lool am na ñu ciy boole bu ñu tër te mooy tilim wala wu alam sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaara lahoo mas naa laaj man kaana lillaahi kaana laahu lahoo lu ñu ci jublu ñu ni ko ku nekkal yàlla yàlla nekkal la sëriñ bi jubluwuñu ci loolu ku lottul ci dara kenn mënu koo nekkal ci dara ku nekkal yàlla ci ndigal yi mu joxla la li yàlla ci yow siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo ca gànnaar am na bis mu jug bëgg a duy ak satalaam bi mu agsee fi ñuy roote gis góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo mu taxaw am naar bu ko gis xam ni daa bëgg a duy mu ñëw jël satala gi duyal ko sëriñ bi mu ni ko jasaakumullahu xayran ginnaaw loolu amaan na ñaari at gànnaar door fa jóge bi mu ñëwee njaareem ba yàgg fi naar boobee ñëw fa yenn fa ba ngoon gisu sëriñ bi añul itam bi sëriñ Tuubaa xaadalawu law loo génnee ca tàkkusaan muy wax kàddu yu ñagas di fàttali sëriñ bi loolee sëriñ bi ni ko amee lu ma benn xaq ca duy googee nga ma duyaloon sama satala gi da ko wax ñetti yoon keroog ba nga ma ko duyalee laa dox sa digg sawara te fa nga waroon a dem siwnal wala loolu mooy gàttal gi am na ku doon siyaare si Sëriñ Tuubaa xaadale wala maxtaar loxo jóge boori mbaakol jëm njaareem am ku ko yóbbante ak pusa mu bëgg ko gàntal ngir tuutal ko mu ni ko dimbale ma yóbbaaleen ma sama pusa bii ma di la xëyal ci sa tool bi ba ba ngay ñëw mu door a nangu bi mu agsee ci sëriñ bi jox ko xàddiyaam fàtte loolee sëriñ bi ni ko desul dara mu ni ko déedéet sëriñ bi jekkeeti ba mu yàgg mu ne ko desul laneen xalem door dem ca puso ba mu door koo jox sëriñ bi sëriñ bi ne ko waaw kay danu ko aajo woon lool daal di ciy def ak wëñ am lu mu ci ñawal boppam ci mbubbam ni ko kookee digal naa la boo demee toppal ci moom moo sa adduna ak sa alaaxira mu daal wax sëriñ bi jox ma li la joxoon sëriñ Tuubaa xaadalaw law ni ko nga jublu ci lan yut yët kooko am na ko doon siyaar ci Sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo ca Jolof ku ñuy wax Sëriñ Masayer Gay radiallahu taala anhu yóbbante ko lu bokk ci pusaag wëñ kookee ba mu àggee ba joxe hadiyaam daa fàtte lañu ko yóbbante ci maxtom sëriñ bi ni ko desul dara mu ni ko loolu laa jot a gis sëriñ bi ko dellul seetaat mu dellu gisul dara sëriñ bi ni ko dellul ba mu delloo ca yoonu ñetteel wa la ko gis ñëw ni ko lii ku ñuy wax Masayer Gaye radiallahu taala anhu moo ma ko joxoon ni ma boo demee joxal ma ko sëriñ Tuuba xaada lahu law maxtaara lahu sëriñ mi ni ko bismillahi lii nga gis dafay mënta ñàkk feeñ tey lu ñu fi soxla woon la wér na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo daana tere boole kafeeg mburu ndax nee na day nuru lu buure wér moom ci jëmmam daana def ku mu jox kafe joxaale la dara xëy na kon tere gi ci ñun la jëm li ma xam daal mooy kafe moom ak jaamu yàlla la boo koy naan bu fekkul nga xiif jërul booleeg dara boo xiifee nag bu la neexee boole wallahu alam am na séeréer bu ñu mas wax danoo bëgg nga liggéey sëriñ bi nga liggéey sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaloo maanaam ñu def ci moom lu tax mu soppiku bi mu ñëwee ba xool ko daa wax ni yàlla bu doon ñaar benn bi mi ngi ci kaw suuf siiw na loolu day wéral li sëriñ bi wax lam yanxuni dararu sum minaw darar sixrin wala kahanatin wala darar mel na ni bu njëkkoon daanañu ko def lu mel noonu mu koy sonal lool ginnaaw bi la dem ba yàlla may ko lor mënatul ci moom dara wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na am na ca àjjana buntu bu tudd rayyaan boo xam ni ñi daan bégal gone yi rek ñoo fay jaare siiw na noonu laa ko gisee ba tey am na buntu bu tudd rayyaan xam ni ñi daan woor ñoo fay jaare xëy na muy benn bunt xëy na muy ñaari bunt waaye li ma xam mooy sunu boroom daa bëri la lool bind itam yomb ci moom lool fi mu benn bis bu nekk li muy amal ci mbindeef ëpp na milliard ci ci moo tax gaaw a weddi wóorul dara wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarloo nee na ولقمة تصد بطن الجائع أفضل من بناء ألف جامع ويرنا لول جوخه بن تيب بسور كخيف موغن تبخ جوني الجمعة ولو أعلم ويوي لي تخ ما انديكو دما غيسول مو اندك لين داكو دان واخ نونو رك خاينا غير سوغني سيرين توبا خادله ولا مختار له نينا ان الفضائل كلها لو جمعت رجحت باجمعها الى شيئين tanzimu amrillahi jalla jalaaluhu wa sa'yu fi islaahi daatil bayni wér na lool daa mel ni daa bëgg a wax ni nga ne li li ñuy bari bari am na ñaari ci ñoom yoo xam ni daanaka boole na lépp te mooy màggal ndigali sunu borom yi subhanahu ak defar ab diggante bu yàqu walaaw alam mel na ni ab hadis la ba tey ñaari way yi damaa gisul ñu ànd ak lenn moo tax ma indi ko fii Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo nee na ku gunge mbokkum jullitam dox benn jéego wala ñaar wala mu lekk ànd ak moom benn tibb wala ñaar wala mu wax ak moom benn baat wala ñaar sunu boroom tabaxal ko am néeg ci àjjana wala ñaar yoo xam ni bu ci ne tol na ni àdduna wala mu ñaarte ko wér na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo nee na xarrat liyal aynu niltul yawma maxsuuda ازدار منزلنا الفم داوود هو الحبيب الذي من ود رؤيته لا شك قد كنت منذ الدهر مجهودا بابا دا ام كوم دون تونت te mooy ka ko wax way yii inal xuruuna bila zunya azimmatuhum fi raxatayka fa yanxaadu mahan xuuda haasa li ahmada bamba kana waliduhu bahar al ulumi namir al ma'i mawruda li dañuy xamal ne sunu borom noppi na ci lépp ndax ki wax way wii ba mu koy wax ci sëriñ bi booba ay atam ci saahir bariwut ndax mi ngi doon jàng ci Maamoor radiyallaahu taala anhu te mel na ni li mu wax lépp te mooy ni ko nit ñi toppe am na bu wér walaaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaaloo nee na ñomboor mooy ak lëg gu mag ni muy dàqe ay ni la tuba tubaab di dàqe malaaka yërmande yi siiw na mel na ni nuróo gi rek moo ko tax di wax bu ñu fàtte itam li yonte bi waxoon mooy ku ëmru aw nit ca ñooña la bokk Sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaaloo am na ku mu doon defar loo warga te mu sol tubay tubaab bi sëriñ bi gisee tànk bi ni ko lii lu mu mu ni ko moom la naare faas yi di sol sëriñ bi ni ko ña fa gën duñu ko sol mu daal di summi tubay ja gas ba mu xóot suul ko mel na ni bëri lool luy xamle bañ gu mu bañoon colug tubaab am na nettali yoo xam ni da nga gis ni mbubb lay wax am yoo xam ni tubay lay wax wala alam ñu ñu ci nettali ñett téeméer bi ak ak juróom ñett am na ku sëriñ tuuba xaadi la walaw maxtaar loo masa wax cheikh ku jub ku nekk maay sa baay ku dëng nag xamuñu ci moom dara siiw na am ku yeew am xar am at di ko yafal ngir bañ mu lekk lu mu xamul mu mu koy andil Serigne Touba xaadalawoo law lawoo jaar ci wetu tool di fa tuur ndox xar ma dagg ca tool ba xobu dugub bi mu ñëwee ni sëriñ bi xar mii dama ko yewoon daaw ba ren fa ma ko yeewoon mosu faa génn ngir bëgg laa yat xar mu la kenn mësuta yut sëriñ bi ni ko yetti xobi dugub yooye mu dagg ca tool ba ca toolub jaamur ba lijjanti ko door a wax la neen nes ay naar dikk fa ni sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaalawoo sëriñ ma sàmba radiallahu taala anhu daa leb suñuy xar jox ko waa dëkk bépp ñu séddoo ko am ku ñu wax ni dem leen ke sëriñ ba negeem moo ko doon liggéeyloo sëriñ bi daal di woolu sëriñ ma sàmba radiallahu taala anhu mu ñëw mu ni ko daa am yitte am ba fob gàtti jaambur yooyu mu ni ko mbàkk yitte ji leen rekk la gàtt yi dañoo jaar Tuubaa fanaan fa yetti guddi seen bopp yi ak seen tànk yi ma bañ ñuy jàll faneen yëfar yu bon yi di ko jëfandikoo di ko maye yàlla ma fab gàtt yi yépp lepp ko jox ko waa njareem sëriñ tuubaa xaadalawu la maxtarloo jël ñaari defukaay yu xaalis yu pees dal jox ko naaree ni leen jàpp leen ci leen ci loolu kon daa di ne ma sàmba ndax da ngeen a bokk ci ñi bëgg a xoral mu ni ko mbàkke xamunu dara sag baax rek lanu xam Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo ni ko sukk sikkuwul ni ñaar ñu xëyee Tuubaa ka mujj ginnaaw moo gën ka jiitu ndax mujj gamu mujj tuuba siiw na xor-xoral xëy na mooy kasu kasu yàlla di la xamal dara loolu ko xam daraa koy def moo tax sëñ bi ni ko mbaa ngay xurxural sëriñ bi daanaka daanaka ko jëfandikoo muy baat boobu masoon na ko wax alhaaji malik si radiallahu taala anhu ci nettali bu mel noonu bu gudd wala alam ñu ngi ci njàngalem sëriñ Tuuba ci ñetti téeméeri ak fukk xasida gi ñu tënkee iqra wa rabbukal akram mu tàmbalee audu billahi min ashaytaani ba xaseet gi jeex bi daana digle ñu koy ubbee kaamil bi ñuy jàng di ko ko tëjee siiw na am na nag ñaari xasida yoo xam ne nii lañu ko tënke xëy na boole leen du wàññi dara wala ubbee ko gii tëje ko gii naka noonu tey siro asir dinaa ñu koy tàmbulee kaamil bu ñuy jàng waaye xamaguma ndax ci sëriñ bi tuuba xaadala wala laxtaar la bàyyi ko wala déet ba tey danaa gis ay dog yu ñuy def ci biir tey siru asir moomin xamuma luy cosaanam wallahu alam sëriñ tuuba xaadala wala maxtaar loo nee na jëw moo gën a bon sàcc ndax sàcc mën naa jariñ ka ko def mel ni mu sàcc am mbubb wala lu ñuy lekk jëw moom du jariñ borom dara te day dindi ak ngëm ci ab xol wér na Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo nee na moytu leen jëw ku koy def lu mu géeju géeju ci xam-xam mi ngi mel ni ku yor gaal gu amul tijjikaay wér na ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuubaa ci ñetti téeméer bi ak fukk ak ñett Cheikh Ibra Faal radiallahu taala anhu Sëriñ Tuuba xaadaloo lawo maxtaar lawo moo ko digaloon taqoo bismillahi rahmaani rahim fukki junni ak yaar bis bu set siiw na naka noonu ñaar fukki hisibi alquran wér na lool mas na am ab bu wax Sëriñ Tuuba xaadaloo lawo maxtaar lawo xanaa man nga ñi la topp ñépp bu ëllëgee nga tabbal leen àjjana sëriñ bi ni ko yow tuutal nga ko lool di man naa bu ëllëgee ma taxaw ca buntu sawara képp ku ma fa ku mu fa ma ni ko jaay ko ma jënd ko tabal ko ajana te duma laal dara ci li ma ko liggéeyal siiw na soxna astu gaawaan radiallahu taala anha képp moo ganee adduna jamono yi Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaar lawoo di nekk gànnaar ci ay waa këram siiw na mën naa am ñeneen ñoo xam ni dañoo guddul fan yitam walaaw alam sëriñ Abdoulaye ak soxna May Kubra radiallahu taala anhuma ñoo ganee àdduna jamono yi sëriñ Tuubaa xaada lawo lawo maxtaar lawo di nekk ci yéen ci ay waa këram siiw na mën naa am ñeneen ñoo xam ni dañoo guddul fan itam walaw alam sëriñ Tuubaa xaada la walaw maxtaara bi muy nekk fa niti galwaa daa am koo doon liggéeyal ci ñoom bi mu faatoo mu wax leen jaay leen ma ko ndax dañu daan jëfandikoo ku faatu ci ñoom bi mu ko jëndee suul ko fi suuf ñu silli ko ginnaawam gisuñu fa dara ba ñu ko laajee mu xamal leen da ko yóbbu fa neen siiw na loolu ba tey mi ngi am ndax lu ko yàlla may la ci murid yëpp fu ñu faatoo fu dul tuubaa ak li ko wër dañu leen di indi daa mel ni daa am ñoo xam ni seen ruu mooy dikk am ñoo xam ni seenu yaram ak ruu gi lépp mooy dikk walla alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara bi mu nekkee gànnaar am na taalibe yu ko doon siyaar si mu gis seen wexi tànk yi am nu mu mel mu ni leen lu def nii seen wexi ñu ne ko bu ñuy ñëw waraay bi ñu yor ak sàngaasi ak seel yi tax na ceddooy naar yi te mooy saay-saay li ñu dogale nuy teggi yoon wi Sëriñ Tuubaa xaada la la maxtaaroo ni leen ba moo def nii seen wexi ñu ne ko waaw mu ni leen ma ñëw daal di dugg ci biir génn xasida gu ñu tënke walillaahi masalu laala génn bayit wi antal xakimu lie kawin rexla wa markaban bi kum yaqinil waxla li leen danaa leen ko faya toogu yuy daw ci ci joor gi xëy na suuf si la bëgg a wax ba ñu demee ca dal ba di waxtaan ci li sëriñ bi wax am ku wax ni àjjana lay misaal waaye waxi sëriñ bi des ko mënta xam sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaar loo dégg ko ree ndu del si fa moom mu ni dana ñëw ba bari ba daj àdduna sépp wér na allamtani alxayba xatta surtu muntabihan anta alalimu lasi allamta yallaahu sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo nee na ñaari mu xaddimaat yi ci la ñu ma njukkale muy sante adduna ak alaxira ci la ñu ma yëkkatee adduna ak alaxira may ma ko maam ñaari mu xàddamaat ci la ñu ma njukkale muy sante adduna ak alaxira ci la ñu yëkkatee adduna ak alaxira may ma ko wér na mooy mu xàddamaatul xidma ak mu xàddamaatul am daax Sëriñ Tuuba xaadalaw la maxtaaloo nee na yàlla subhanahu wa taala la fekk muy taggal boppam yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam la ala lool Sëriñ Tuubaa xaadala a maxtarloo nee na muqaddamaatul am daax fukki bunt la ak juróom benn bunt bu nekk fukk way ñaar la way wu nekk mel ni jaamu yàlla at mu ñu nangu daa ni jalub garay xëy na mooy wëttéen wala wëñ gi nuy ràbbe ci ni mu taxaw fii garay mu ni jalub garay boo ko sànnee nit cib sedd sàngoo ca pexe liw baray ko man madim njaago dikk def ko sirum njaago ba mëneef koo sàngoo njaago daa mel ni mooy ab ràbbukat ci ni mu taxawee fii li muy xam xamle mooy sunu borom subhanahu wa taala daa wax yonente bi salallahu taala alayhi am nga jikko ju màgg waaye leeralul jikko jooja bi mu ñëwee moom sëriñ bi daa leeral loolee ba mu leer ñépp walaw alam moo tax mu nurule garaay goo googu mooy wëttéen wi wëttéen wi ku liw boo ci sàngee liw ba mën a laare waaye buñ ko ñawee ba mu doon mbalaanum rabal nag ko ko sàngoo maam mu fegal la liw booba mooy loolu leerul woon ci jikko yonente bi rek daa wax am nga ji am nga jikko ju màgg la suñu borom wax waaye leerul jikko ja sëriñ bi nag bi ñëwee moom la leeral nañ maanaam ci xasida googu ak yeneen xasayit am na weeru koor woo xam ni genn yaxu pulóox te mooy njàmmi ci la sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtarlawo daan doge di ci xadd booba mi ngi ci géej gi siiw na am na ko tudd ibrahima basil wala basel radiallahu taala anhu maam cheikh ibra faar radiallahu taala moo ko waajaloon muy yóbbu ci sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo lu mel ni baraay bi mu nekkee ci géej gi nee na bi mu àggee juróom ñaari yoon la ci sëriñ bi mus sunu borom tere ko ko siiw na ñu ñëw ci nettaleem ñetti téeméer bi ak ñaar fukk ak ñeent am na naar bu mas a gane ci Sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo ca njareem am fa ñetti weer sëriñ bi fonk ko lool moom naar bi léeg-léeg mu doxantu suba ñëw fi nuy jànge kaamil laaj ab jukki am bis mu ni sëriñ bi daa am lu may laaj sëriñ bi ni ko lu mu doon mu ni ko damaa gis alxuraan kenn du ko jàng ba kenn daanu du gànnaar du fii te sa xasida yi ma gis bu ñu koy jàng taalibe yi di dañ dañ mooy dal ci kaw garab yi ak tabax di summi seeni sér di joxe seeni alal loolu jaaxal ma Sëriñ Tuubaa xaadaloo la ni ko demal fa néeg ba nga nekkoon danaa la tontu ba ñu demee ba digg bëccëg sëriñ bi yónnee ko dugub ju ñu soqul ni ko na ci añ mu ne ko lii mënee ci añ fobal yit ko bi ndaw la ñëwee sëriñ bi ni ko daa añul mu ne ko nee na mënee su ci añ sëriñ bi ni ko tegal foofu joxaat ko laax bu ñu def dax ak diw ak niw ak tànkub xar bu ñu lakk ak warga ak suukar ba mu yeggee mu daal di jëfandiku ba suur ca ngoon Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loxo woo ko ni ko loolee njëkk a ñëw lu tax mënoo ci añ mu ni ko dañ koo defarut sëriñ bi ni ko alxuraan dugub la maa ko soq wal ko nii ma la mujj a jox wér na lool maa ko soq wal ko ba def ko nii ma la mujj a jox sëriñ tuuba xaadalawoo mas na ñaanal sëriñ saalixu doomam ba aw ñaqam di seet booba mi ngi ñu boot wér na sëriñ abdullahi radiallahu taala anhu doomi sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo mas na ñëw njëreem yendu fa bi ñu julee tisbaar mu ni daa bëgg ku ko yóbbu ca jumaaja fekk booba jumaaji di door a noppi bañu koy defal ay lamp bi mu wëree bay dellu ca kër ga ndaw dab ko ni ko kaay wuyu sëriñ bi bi mu ñëwee sëriñ bi dindi ñaari mbalaani sër jox ko ni ko benn bi na nga ko dog mbubbu beneen bi nga di ko sàngoo te daldi dellu daarul alimil xabir wér na lool sëriñ ibrahima njaay radiallahu taala anhu neena li mu mujj wax ak sëriñ tuuba xaadaloo la wa maxtaara mooy lii dañu ma yónni woon fa moom ma ma fi barab tiim ndab mu génn ca wetu gànnaar waaxu wut si ma ni ma dawal wooli ma kale mareema ma woo ko moom ñëw sëriñ bi rëdd aw rëdd ci tànkum nday jooram ak dalli neppe neppe xeeti dalu la mu rëddu ko ci dalu nappe wi mu sol jëm gànnaar walbati ko kale mu ni ko mbàkke Sëriñ Tuuba xaadalawo la maxtaar lowoo ni ko nañu ko sàkket wér na lool Sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaar lowoo nee na bu na julli di yàq dara te bu ko dara yàq lépp lu waay di def ba waxtu teew na ko bàyyi dem julli ji ko mooy moo kuy sàcc yam wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo nee na déndub suuf li muy yaatu yaatu fu waay sirati dal na ma wér na sirati mooy tifli yu jaare ci pax loolu sëriñ bi wax dañuy leeral ànd gi mu ànd rek sunu borom subhanahu wa taala ak dugg gi léppam dugg ci sunu borom subhanahu wa taala ndax kenn sikkul ni sunu borom mi ngi fépp wala ñu ni fépp mi ngi ci sunu borom naka noonu ki dëkkaaleeg moom jox ko léppam may la sunu boroom yooyee day feeñ ci moom walla alam sëriñ Tuuba xaajala wala maxtaaloo am na ku mu masa masoon a yeewi mu néeg dem lu yàgg ba benn bis am ko sëriñ bi wax daa mel ni dama gis takk ndéerub diw ci dëkk bi mu ni ko mi ngi fi sëriñ bi ni ko nañu ma ko wool bi mu ñëwee sëriñ bi ni ko lu la teree dem ba léegi mu ni ko dama néeg dem sëriñ bi ni ko foo nekk maa nga fa lu yàgg-yàgg tey bul fanaan ci dëkk bi wér na ñu ci nettali ñetti téeméer bi ak fanweer ak benn Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo mas naa wax nañu ko may ba ñépp di dem mu am ku mu woowaat ni ko waaw kay yow bokkoo ca ñooñee wér na nee nañu këru njaareem gi daa bari woon ay bunt lool buntu bi feetee kër sëriñ ma sàmbara de laaw taala anu ku ñu wax Idrissa Fall radiallahu taala anhu moo fi nekkoon buntu ba jàkkaarloog jumaa ji ku ñu wax Sëriñ Moor Mbay moo fi nekkoon radiallahu taala anhu buntu bi mu jaare bi muy dem bi muy ñëw Tuubaa te mooy laqu moom moo ko yoraloon boppam mujj na wagar ko lool di jaare ci buntub Sëriñ Faat Tàkko Jóob radiallahu taala anhu ak Sëriñ Cheikh Fall radiallahu taala anhu te mooy buntub sàq ma buntu kër soxna yi ko ñuy wax Moodu Habsa radiyallahu taala moo fi nekkoon ak di jàngale buntu bu ndaw ba mu fi kenn nekku fa woon Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loo daana yi ñoo fa nekkoon dale ko ci Abdoulahi Touré Cheikh Touré maam Dieye Soxna Mbay Cheikh Jigal ma Dieye mu ndaw Xasan Mbay radiyallahu taala anhum ñu daa liggéey ci biir kër gi bokk na ci Serigne Aliou Sey taala anu ministre la woon bu mag ak waa këram Serigne Kala Saadix radiallahu taala anu Serigne Mbacke Diouf radiallahu taala anu Serigne Cheikh Top radiallahu taala anu Serigne Moustapha Ñaan radiallahu taala anu buntu rootkat ya ci seen wàllaa daaray liggéey ja moo fa nekkoon buntu rootkat ya ci seen wàllaa daaray liggéey ja moo fa nekkoon buntu Serigne Muxtaar Silla Cheikh Ndiaye Abdourahmane Touré mu sëriñ Aliou Touré sëriñ Mor Kumba Touré mu sëriñ Aliou Touré sëriñ Penda Buyo Abbas Busa sëriñ Faar Kër Matar radiallahu taala anhum xëy na daa bëgg a wax ni ñii ñoo nekkoon ca daaray liggéey ja walaawu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo moo leen booleeg sëriñ Mouhamadou Moustapha doomam radiallahu taala anhu moo leen daa reer sëriñ Aliou Touré radiallahu taala anhu ñetti oto la amoon benn bi mi ngi tuddoon daraay ba ca des Renault ba ca des kilisideer daay liggéeyam mooy dem gungel wala kujaari ay dëkk lañu wuti ay bant bant yooye daana gudde ñaar fukki meetar moom la daan defare li kër gi Sëriñ Tuubaa xaadaloo wala maxtaloo amoon na oto bu tudd ralaal kaat loolu turu tubaab la sëriñ Banji Njaay radiyallaahu taahanu daana ko dawal bu ñëwee day ubbi sëriñ bi dugg toog mu delloo bunt bi door dugg moom amoon na it fu muy taxaw xëy na muy ci kër gi wala geneen kër wér na lool moom oto bi amoon na fu muy taxaw mu ne xëy na muy ci kër gi wala geneen kër wér na lool am na ñoo xam ni Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo da leen a féetale woon ci daare kaamil waxtu wu nekk ñuy bind ay kaamil noor nawet bokk na ca sëriñ Abdou Gaye sëriñ Njaay Siis sëriñ Alxaaji Ñaan sëriñ Ibra Ñaan sëriñ Mor Sàmba sëriñ Mor Sey sëriñ Aliyu Njaay sëriñ Moodu Hawa Njaay sëriñ Mor Njaay Mboor Njaay Areen sëriñ Aliyu Sàll sëriñ Mohamadou Silla sëriñ Abdourahmane Cissé sëriñ Mandiaye sëriñ Lo sëriñ Demba Kebe radiallahu taala xanu naka noonu sëriñ Mouhamad Lamine Diop Dagana radiallahu taala xanu teewul mu ko daan booleeg toppatoo ganinaar yi ak bind xasida yi ak di nodd naka noonu sëriñ Mouhamadou Habib moom maam Thierno radiallahu taala xanuma wér na lool képp ku ñu tuddee sëriñ Touba xaadalaw la maxtaaloo ñu koy wax moodu njëkk sëriñ bi di dem ci géej gi waaye képp ku ñuy wax cheikh ginnaaw bi mu dikkee la wér na Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas nay jàng wakkaana xaqan wala mu koy xool ba agsi ci abxaa salaamayil karimi samadi xalal nabi wasilati muhammadi xalal nabi wasilati muhammadi abxaa salaamayil karimi samadi mu sëgg am lu mu déy sëriñ Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Fadilu radiallahu taala anhuma siiw na am na ñuy wax ni da leen wax ni dugalante naa seeni mbir ni ma dugalantee ñaari bayt am na ñuy wax ni da leen wax ni dugalante na seeni mbir ni ma dugalantee ñaari bayit yi waaye walaw alam Sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaanoo ana wax luy tegtale màggug waa këram yi mu am ginnaaw géej gi wér na lool Sëriñ Moodu Joosi radiallahu taala anhu bi muy nekk gànnaar am na bi Sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaar lawoo yan ko ak gaal gu diis gann muy dox ba yegg ci aw yoon woo xam ni ci am ndox lay xoos muy wax ci am xelam ak a neexoon mu dugg ci am pax ba faatu fi noppalu Sëriñ Tuubaa xaadalawo laaw maxtaar lawoo ni ko Ahmadu doxal ci sama kanam li ma war a def ci yéen danaa ko def ba mu mat seen ruu yi dara du ci sikk te tàgguwuma nee na ginnaaw lii la sëriñ bi tàmbali ku muy àndal dalay jiital siiw na Serigne Modou Diosi radiallahu taala anhu mas naa ñëwaat ci Serigne Touba xaada loxo law maxta loxo ginnaaw bi mu ko yeewee ànd ak mbooloo Serigne bi ni ko foo nekk mu ni ko jola fira Serigne bi ni fu mu nekk mu ni ko ci wetu caay-caay Serigne bi ni ko mbaa nekk ñu fay caay-caay mu ni ko lu nekk la nu fay def sëriñ bi jug ci tànkam bu tedd ba lu mat téeméeri meetar ni ko nañu ko sàkket bala ñoo noddu fajar mu defe ko noonu siiw na yal na nu sax ci sopp ko ak liggéeyal ko amin sëriñ Tuubaa xaadalawoo lawu maxtaara lawoo nee na jamono jii ku ci xeeb xaj xajal def dara wér na xaj xajal xëy na mooy jéem a dugal mbir fu mu xajut lu mel noonu mel na ni moo doonoon meloom ndax Sëriñ Bachir radiallahu taala anhu ci minan mi nga wax naan léeg-léeg gent di waaja so mu mel ni kuy mettelu ngir lu mu bëggoon mu xacc te mel ni xaju ci wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mas naa wax soxna Faati Ja Mbàkke radiallahu taala anhu sama xasida yi ni ngeen ci góorgóorlu bu baax di ko bind di ko jàng diir bu gàtt ñuy bind seen bopp di jàng seen bopp wér na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo am na ku mu masa wax digal naa leen lépp lu ngeen di bëggati seet leen ba xam bu ngeen ci jotee dana leen jariñ wala du leen jariñ bu leen dul jariñ xam ngeen nu ngeen ci teel a defa mu ni kon nun cay teel a def sëriñ bi ni ko da ngeen cay teel a génn ndax lépp loo xam ne nii bëgg ngeen ko te bu ngeen ca jotee du leen jariñ bu ngeen dogee ca jot ca dama leen cay fekk ba leen cay fekk jox leen ko duma ko tey te digal naa leen lépp lu ngeen di bëggati te muy lu leen di jariñ bu ngeen ko de sàkku dogu leen ci jot ci lu ngeen dogu rekk danaa leen ci fekk lu ngeen ci am njëkk jënd leen lu ngeen ci amul njëkk leb leen maa leen koy fayal wér na sëriñ mortala fall ak sëriñ abdullahi xaar radiallahu taala anuma mas nañoo ñëw ci sëriñ tuuba xaada lawoo laahu maxtaara lawoo bisub koor yenu fukki ndab ak ñaar ba ko yenn koo baraam nuyu sëriñ bi dañu mamar ana baay munu ko ma nga fa waaye dënd ba da koo daaneel sëriñ tuuba xaadi lahoo maxtaara lahoo ni ko ma mar dem leen seetal ma sa baay ba ñu ñëwee mu ni leen bu naat xeetu bàyyi ma la amul ween bu naat amul ween day xool doom ja mu suur wér naa ba bi mu lu mu wax ñu wax ko ko sëriñ bi ni ibrahima faal kenn melul ni moom wér na lool ko mu amul ween day xool doom ja mu suur wér na ba ñu dikkaatee ci sëriñ bi mu ni lu mu wax ñu wax ko ko sëriñ bi ni ibra faal kenn melu ni moom wér na lool ñooñu ci nettali ñetti téeméer bi ak ñeen fukk ak ñett bis bi sëriñ bi bindee jaawatu mu nekk ci ñaari feggu fekk sëriñ mouhamad lamin diob dagana radi taanaanu di jàng ca tekkusaan mu jox ko ko ni ko jox ko masàmma na ko ñëpp daa di bind wér na lool sëñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo am na ñu mu wasa wax dañu leen ku ci naanati sama attaa ji bàyyil di wax waxi caaxaan ndax ku ci naan rus nga dekkee fa yonantee di dekkee alayhi salaatu wasalaam wér na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaara lawoo mën naa wax sëriñ Mor Xari si ak sëriñ Malick Basin si radiallahu taala huma kaay leen yéene ñaar ñi sant si ñu ni ko waaw mu ni leen seen sant woo wi siin gi defal naa leen ko salaamatu mooy mucc xaal kubéer gi muy hidaayatu mooy ak jub Sëriñ Tuubaa xaadar lawo law maxtaar lawoo mas naa wax ci ñoom ñaar ku bëgg a gis ñaar ñu bokk benn xol xool leen am na ñu mas toog di waxtaan ci Sëriñ Tuubaa xaadar lawo law maxtaar lawoo ñii naan waliyu la ñii naan yonente la sëriñ bi ubbi ni leen ku ma jàppee waliyu ma def ak moom ni waliyu di def ak waa këram bu ma jàppee yonante ma defak moom ni yonante di def ay saabaam kenn ku nekk noo ma jàppe yaa fa nekk dal di dellu ca biir di wax naan cëy la ma doon cëy la ma doon wér na am na ci taalibe yi koo xam ne bane nettali la muy nekk ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom-ñeent am na ci taalibe yi koo xam ni sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaraloo da ko daan woolu mu doonoon ku fonk boppam ci wàllu col am bi sëriñ bi woolu ko fekk mu sol yére yu ràññi ko ba tax bi mu agsee toogul fi suuf sëriñ bi ni ko diw mu ni ko mbàkke fii kenn baaxu kenn ku nekk yaa ko fekk ci jikkoom defar ko fekk ma ci sama jikko defar ma sëriñ bi muuñ siiw na sëriñ Masamba Kandi Buso radiyallahu taanu bu masaana toog ci sëriñ Tuubaa xaadale wala maxtaaloo muy wax danaan loolu raw na xiyaas wala mu naan loolu ëpp nam xel bu sëriñ bu waxee lu man ñaari baat déggul ku bind mooy kàddu dënn déggul ku bindi danaan xanaa ma sàmba defee néewul bu ñu nee néewu fi fa yamale wax ja masaa wax te déggul dënn bu riir xanaa ma sàmba dafee néewul bu ñu nee néewu fi fa la yemale wax ja siiw na lu mën a am bari na lool ay nettali yu nuroo ci waxtaan wii loolu moo koy dolli ak sax bu wér walaw alam